ñu ñu leen doon nuyoo tey ñu ngi wat Adrien Senghor tey mooy le 25 décembre ki xam ne moom mooy Marongue production organisée maam Thierno ñu ngi koy nuyu waaye nuyu mbokki internet ñuy suivre ma ànd ak suma doom Mansour di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy suivre ci internet bi waaye tam équipe Leewtoo bi ñu ngi nuyu baax a baax di féliciter suñu mbokk waa sécurité bi Mansour tey gis nga nu ñuy def ñoom dañu ànd ak déggoo boo xam ne képp ku fi dugg am na nu ñuy def ak yow lamb say poos visiter la xool ba xam ndax yor nga loo xam ne dañ koy aay wala déet xoolal gis nga amul mag amul ndaw amul xale nga rafet ñu visiter la nga ñaaw ñu visiter la làmb nañu poos yi gis nga bu fekkent nga ñu am dara loo xam ne dañ ko ci xaw a xalaat dañ lay naan génne ko bu dee luy gaañe la wala luy la ñu def ko ci kaw kees bi wala ci biir kees bi muy briquette wala muy leneen kon mbokk yi policiers yeeg gendarme yi ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay commandant yeeg commando yi nuyu nañ ñëpp. waaye maam Thierno ngi noonu mam Thierno nuyu nañ la. waa ñu ngi lay fay bu baax. waa tey moom lamb ji teel naa jeex. waa waaw waaw ala daw mel ne mënul ñàkk. Ndeye Fatou Maodo. ak Maodo waaw ak Maodo ak Maodo lu wóor lu wóor. Euh, bëri na fii champion tamit parce que ñu mel ni général Malika ñi ngi fi ñu mel ni Ngor nagaan ñi ngi fi ñu mel ni Ibou Laye ñaan ñi ngi fi bëri na ay champion daal bëri na ay tey mooy sa première waaw tey sama première édition may doog a dugg ci làmb nii kon ci gannaaw gars yi nag mais làmb moom dund nañ ko dundal nañ ko tamit euh, tey jii koo ne Baye Fall tey na ko maam Thierno ci làmb danaan la bulet kooku du gan ci làmb kon nag donc dañ naan sant yàlla rek sant yàlla mënul ñàkk li may ñaan amateurs yi tamit di ko ñaan tamit promoteurs yi ak suñu mbokk séeréer yi ñu booloo doon benn bokk ndey bokk baay xam ne làmb ñun ñëw ko moom jéggaane wuñ ko. lamb pour séeréer la ñu gëm nag am na bon dimanche bu jotee loo mënoon jàpp da ko ba nga ñëw toog stade sa xel génn ci coono yi génn ci xalaat yi aussi lool tamit am na ci solo. lañ ci lamb muy moom muy Souleye sañ muy ñeneen ñu mënti tudd waa Jilas du jaay du ñaan euh, ak keneen ak keneen mane dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax xam ne làmb dafa soxla ñu mel nii kon Mansour ñoo ànd ak mam Thierno xooli li nga xam ne moom la ñu amee ci biir làmb ji tey moom Grand Yoff dina wàccat ba zéro Ibu mu ngay cherché xale baa noonu Ama bu Ngunjaan ñu ngi nuyu mboolem tundu Ngunjaan Pey Joor Samel waa Cangaay waa Mbur waay Libidor l'enfant Ngunjaan na attention xale bi la muy def ni Ibrahima ndeysaan Serigne Mamadou Ndiaye ngi noonu nee daana ci dara Serigne Mamadou Ndiaye ndeysaan nee na lamb daana ci dara Serigne Mamadou Ndiaye ration xale bi daw na jël ko day plaqué li bi door bañ na jàppoo nañu attention bàyyante nañu attention takk na war na ko war na ko fu mu jam ak moom war na ko ndomba da koy daan waaw daan na ko kay xale bi non xam nga général Mansour dafa ñëw décision tey. tey ñëwagul foore. wala Libidor ak Ibou. ndeysaan. nee na Mamadou Ndiaye rek lay supporté sëñ Mamadou Ndiaye. ndeysaan. sëriñ Mamadou Ndiaye. amateur bu mag ba. attention jàppante ba dëgër croché na loxo ndax da ko bëgg a bal fii bu amoon vivacité xoolal bañ na ko mu bañ jël na tànk ba eh Boucar daw na jël tànk ba mu bañ Libidor jël na ko war na ko lamba sees na ko mu tourné ay waay xale la muy bëree la ilaha illallah génn na na ko mu ngay mbot Libidor Libidor bañ na Libidor jàpp na ba mu dëgër Libidor jàpp na mu dëgër <laughs> la ilaha Serigne Momar Ndiaye attention général Malika jëpp na suuf sa Mansour gis nga jël na ko dugal ca ngemb la mu ngay dem xale baa ngi noonu la ma chérie de Malika dem na ci digg ba xoolal la muy def ay <laughs> lamb waay lamb day waar ñu ngay waat li bi doon maa ngi ñoom ni lamb na ngoog la mu bañ arbitre sifflé na kenn ku ne raxasoo nga suuf yooyu baat loxo yi jàppante na ñuy loxo ndeysaan tension jàppante waat nañu ñaari xale yi Ibi Loor ak waaye loo ci mënti dégg la mu jaar dimension bi attention li bi doon daw la jël ko mu bañ plaqué xëjoon na fa mënoon na ko plaqué waaye xale bi da xoolal mu nga koy prise eh prise boobu dalee beneen affaire la waaye bu bañ na attention li xale bi jot na xeeb dafa doy waar xoolal xëcc ko mu bañ ñaari pied gauche la nu ñoom ñaar jàppante nañu xoolal ca beneen wàll ba ŋoobu ko yëkkati na ko daan na ko <laughs> ah ñu ngay annoncé deuxième quart de

jàppoon na ñuy ci loxo mu ngi koy xëj mu bañ def na ay jeu de jambe changé bi par gauche jëlaat na gauche ba maanaam deux pieds lay ngay jàppante ci suuf attention songo na génnaat Daouda ngi song di génn attention général songo moom tam génnaat jàppante nañ ci kaw jàppante nañu kaw attention daw na jël tànk lonk na ko mbop daan na ko général daan na ko ndeysaan Moussa Ndiaye Ibrahima ñu ngay bëri quart de finale la ana kan moo war a jàkkaarloog Sandengler relation daw na taf na ko takk na Ibou Ibou mot na ko takk nañ ko penalty waaye Ibou ndax dañ jigéen yëkkat na ko ba ca kaw wàcce mu ci yow dina baax tegante nañuy bopp tegante nañuy bopp merci beaucoup les amateurs ndeysaan eh xoolal <laughs> waaye xale bee waale waaye Boucar Boucar xale bee waale Ibrahima Fall lay bëri xale bu naqaree bëri lay bëri grand ah, Ibou beneen affaire la waaw jàmbaar la gis nga fi dimanche xoolal xoolal yóbbu na ko waaw waaw daan na ko doole joxul jàmm Boucar mbokki Ngoundiane ak li ko war Macky Leewtoo ñu ngi leen di nuyu Mbarongue production organisé